internet euh, yéen a ngi fii ci Sénégal ñoo ngi leen dalal tey jii dañoo am interview ak Pape Ousmane Diouf Pape Ousmane Diouf moom mooy jiital Washington West African Center di association ba nga xam ne ni moo ngi ci États-Unis waaye tamit nekk ci Afrique de l'Ouest di taxaw africain yi di taxaw doomu diaspora yi nga xam ñoo ngi foofu ci États-Unis Pape Ousmane Diouf ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi di la ziyaare di leen dokkale rek ak képp ku seetaan ci Sénégal dañ leen di siiwul waxtu bu nekk. di bég ci seen liggéey bu rafet. jërëjëf Pa Ousmane Pa Ousmane soo ñu mënoon dikkal rek Washington West African Center lan mooy taxawaayam ak tamit kan ngeen ko créé. jërëjëf Washington West African Center man maa ko créé euh, 2017. muy 2017 ak suma personal story maanaam history moo tax ba ma créé ko mhm. ah, ndax dama nekk ab moodu moodu nekk États-Unis du fa daanaka vingt ans muy 20 years mhm. dëkk ci état yu bari dama jànkuwanteel lu bari nag ci année yi immigration Amérique jàppoon nañ ma mhm. amin tëj ma ci giri bi quatre mois génnee ma defal ma monitoring bracelet ma dundu fa ay jafe-jafe yu bari yu métti ndimbal yi nga xam ne moom laa soxla woon bi may dund jafe-jafe yooyu te awma ko woon loolu moo tax bi ma demee ba am kayit foofu yàlla dimbale ma ma xaaral ma créer lii pour jàppale waa Afrique CEDEAO yi nekk foofu am ñu leen eh, defal nag ay façon yi projet yu bari lañ fa am pour xale yi pour mag yi ak ñu bari. Mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. léegi comme da nga wax sànq ay waxu jafe-jafe sama xel dafa dem ci benn question eh, yan jafe-jafe yu gën a mag la africain yi di jànkonteel foofu noonu. bari nañ mais pour tënk. benn ci yi ci gën a am solo mooy ku amul kayit mhm. ah, ndax ñun ñëpp ay immigré lañ mhm. benn benn africain ngay gis ñu ñëw foofu ñoo xam ne dañ am kayit mhm. like seen parents yi dugalal leen kayit mais ñu bari suñ ñëwee duñ am kayit te dañuy struggle bu baax benn ci ñoom mooy affaire yi langue surtout ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci am ah, dëkk yoo xam ne am anglais bi nekkul seen première langue maanaam first language ñooñu dañ day am difficulté pour comprendre lu bari place ñuy bugg a dem wax ak nit ñi jëflanteeg nit ñi loolu jafe-jafe la boo xam ne nit ñi dañ koy jànkuwanteel number two mooy mun a am liggéey ndax soo fa nekkee amoo kayit munoy am liggéey sa xel du dal loolu dafay affect sa mental health si boppam parce que da ngay nekk foofu di struggle am euh, every single time chaque fois yaa ngi struggle di xalaat ndax immigration du ñoo jàpp ma sooy dawal oto sax wala nga nekk ci tali bi sax yaa ngi ragal soo gisee police yaa ngi ragal ndax police la ñëw arrêté wala du la dara am but beneen bi mooy discrimination tamit bari na fa mhm. joo xam ne mu ngi xew foofu noonu am di gis ku toog am appartement par exemple mhm. am ñu lay take advantage wala ngay liggéey si place ñu war lay fay 10 dollars wala 20 dollars par hour waxtu bu nekk ñu fay la genn wàll gi wala duñ la nangoo fay sa xaalis te doo nangoo kelema yenn yi ak bu gën am solo tamit nag mooy yëfi wér bu yaram soo fa nekkee nekk immigré amoo kayit di nga gis ñoo xam ne dinañ feebar ba bugg dee te duñ nangoo dem l'hôpital mm-hmm. parce que pour nga dem l'hôpital dañ lay caaj xaalis bu baree baree baree bari wala duñ la faj soo fayul ak sa xaalis bopp amoo insurance loolu jafe-jafe bu mag la boo xam ne ñi dañ koy jànkuwanteel mm-hmm. soo demee ñu jox la facture boo xam ne soo ko fayulee ñu def ko sa crédit mu yàq sa crédit soo mm-hmm. soxlaa bugg a kër doo ko mun a am soo soxlaa bugg a oto pour lii ko lu bari soo ko soxlaa su sa crédit baaxul Amérique wala am euh, boor boobu daf dee xaw a métteeg ñun soo affaire yi hôpital daal problème bu mag la foofu yoo xam ne bokk na ci yi ñuy jàkkuwanteel. yaa ngi wax sànq wàllu raci wàllu racisme. wàllu racisme racisme maanaam racisme. Hmm? Oh, yaa ngi koy mhm. wax sànq. Mhm. léegi yow yu mel noonu te jii suñ leen woowee. Mhm. yéen seen association bi ban taxawaay la ci def. loolu bari na loo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel foofu ñu xool sa couleur yi yaram wala nga wax rek ñu xam ne jóge woo fii ñu bugg laay not teg avantage loolu am nañ kees yu demee noonu ci ay police am nañ kees yu demee noonu ci appartement ci boppam bu yàggul nii rek deux mois ci gannaaw laa jógee ci benn apartement boo xam ne dafa am benn gel bu fa dëkk am daf doon sëy ak koo xam ne tubaab la am ay jafe-jafe seen say yàqu am kooku génn ci kër gi appartement bi bugg a dabul li nga xam ne moom la doon fay moom luwaas foofu noonu en tant que koo xam ne nekkul doomi dëkk bi suma association bi dañ taxaw pour jàppale ko pour xeexal ko daaw jéeg am na benn Gambien boo xam ne day dawal Uber am dafa mel ni yàngoo bi ngeen am fii euh, foofu mu euh, da doon dawal loolu rek am benn geli tubaab ak am faram bi ñu jël ko ñu rey ko biñ ko reyee ñu soxla justice ñu téye xale bu jigéen bi tubaab bi quelque mois rek ñu ne dañ koy bàyyi ay parents am ñu ne li muy dund dafa bari ñu bëgg koy bàyyi mhm. famille boobu ñun suñu association bi dañ taxaw ñu dem ak ñoom tribunal man ma wax foofu ci tribunal bi wax ak juge bi wax ko ne na doxal justice su ko defalut ñun pare nañ pour def lu nekk tout le temps pour gis na justice am na ndax nekk africain warta tax kii ay parents ñu ngi toog seen kër ñu ngay giseek moom mu ngi ci gëré bi mais chaque jour ñu ngay gisee ak moom ci internet bi di wax ak moom vidéo call mais ñun suñ citoyen dëkk rey nañ ko mhm. kooku dafa ñëwoon fii moodu moodu doon liggéey nekk ci terrain bi di liggéey ñu jël ko rey ko ci fat ba dañ bëgg ngeen doxal justice mhm, ba kooku jot a am justice foofu te résiser moo doon dox foofu su fekkoon ne amul ndimbal rek amul ay mbokk yu ko taxawu ak ñun ndekoon loolu doon am yi bokk na ci yoo xam ne day am foofu chaque fois affaire racisme te ñun fu ñu ko yëgee rek amuñ ci zéro tolérance dañuy meeg soo ñu taxaw pour gis ne xew na kon dafa mel ni yaa ngi wax wàllu justice kon dafa mel ni immigré yi foofu noonu li ñu am problème ak justice. waaw kay waaw yan xeetu problème la ñuy faral di am ak justice. bari na comme police yi jël la rek taxawal la ci mbedd mi nii surtout si jamono Donald Trump bi nga xam ne Donald Trump moo nekk président Amérique. Mhm. amin dafa tegoon ay règlement yu bari. Mhm. yoo xam ne da doon not am am euh, euh, immigré yi. Mhm. te benn ci yooyu soo comme ku nekk ci mbedd mi nii taxaw police yi ñëw gis la wala nga def minor traffic violation ngay dawal oto ñu gis la ñu jël loolu su not bi a reason pour ñu war laa delloo sa dëkk mais dañ doon expedite process bi pour delloo leen amin koo xam ne am criminal instant yi mu ngi am benn sénégalais boo xam ne ñu ngi koy jàppale affaire yi justice la ndax moom am dafa am problème immigration jàpp ko ñëw indi ko mu ngi ci tribunal ci instant yi tribunal bi jeexagul te luwaaye dëkk yaa ngi ci tribunal jël benn am matuwaay mais kooku mu ngi ci tribunal gars yi ñëw arrest ko yóbbu ko dem tëj ko jamono ji ñuy wax nii kooku mu ngi ci gri bi sama bureau ñu ngi liggéey ak moom utal ko avocat pour jàppale ko pour make sure suñ caaxaanee rek dans deux mois dinañ ko gis mu dellu si Sénégal fii te loolu nekkul loo xam ne fa war a am soo ñun ñu ngi taxaw kooku di ko jàppale ñu jël avocat di dox ci yenn yoo xam ne pour lu koy dimbale la ba nga gis ne am na justice bi mu bëgg. Hmm, kon loolu am na solo kon dafa mel ni kon dafa am Sénégal yi africain yi nga xam ne dañ fay nekk dañuy am problème te soo moytuwul dañ leen war a rapatrier yéen aussi da di taxaw ci lu mel noonu cas yooyu est-ce que bëri na fa. bëri na fa. bari na fa te taxaw bi bari na su pour ñu dem gisee député yi maanaam defarkati luwaay assemblée nationale dinañ dem gisee ak ñoom su jalee pour ñu dem gisee gouverneur bi dinañ ko def su jaree pour ñu créer pétition pour nit ñi signer pétition boobu dinañ ko def dimbale boromam jalal ko avocat dinañ ko def taxaw dem tribunal taxaw man mi jiite mbootaay bi ma wax ak juge bi dinañ ko def su soxla pour ñu bindal ko ay dossier pour taxaw ko dinañ ko def so am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def cas yi nag dafa utee ça dépend ci ku nekk ndax am na si ñenn ñoo xam ne tamit nag ci suñ ni ñi ñoom ñooy dugal seen bopp ci problème yi nga xam ne dañ koy def lu mel ni domestic violence por exemple nga toog am sa njaboot ngay dóor sa jabar wala yuuxu sa jëkkër wala say doom nga am leen ñu def lu ndaw nga dóor leen Afrique fii ñun xam nañ yooyu soo ko fi defee ñaareel doo am benn problème mais foofu xale duñ ko laal nga am sa jigéen wala sa am jabar di ko yuuxu wala nga dóor ko su ko luwaa yëgee rek dinañ la dugal ci problème yu bari including ñu nangu say doom sa loxo ak bari yoo xam ne di nga ko jànkuwanteel soo demee ba am criminal record nag wala nga sàcc wala tappale wala nga def ñu jàppee la ci yu fi drogue amin wala affaire fetel ak yii yooyu soo demee ba am criminal record daf di métti ñaareel nag ñun yenn yi Afrique suñ fi nekkee dañuy bugg a jaay gaaw lu nekk biir système bi wala lu nekk gereese benn ñaar police jàpp la ngeen xaaral ma gereese am lu ma ko jox loolu gaaw la dox foofu du ma ne amul mais gisuma ko fa man te suñ demee ba sa tour nekk ci système bi nga am criminal record mhm. loolu pour ñun ñu jàppale la wala pour nga génn ci loolu dafay métti mhm. te état moom yooyu duñ koy caaxaanee soo amul benn record nag yaa ngi set ñun pour ñu jàppale la dafay gën a yomb mais su fekkee ne yow amoo loolu mhm. amin danga am benn record criminal rek boobu yow pour jàppale la dafay métti bu baax avocat suñ lay jëlal avocat sax lu cher lañ lay caaj te duñ la garanti ne mun nañ lay even dimbale nga génn ci tolof tolof gox bi nga nekk. jërëjëf leer na parfois aussi dañuy faral di gis ay africain yu nekk foofu faatu. Mhm. ñu war a jël seen koor yi war leen indi fii Afrique. Mhm. yooyu taxawaay yooyu noonu loolu noonu est-ce que du am du am jafe-jafe foofu noonu. ah loolu jafe-jafe bu métti la te ñun yàlla def na daaw muy deux mille euh, euh, vingt deux bi. Mhm. Euh, treize personnes. ñi jógee Afrique CEDEAO West Afrique. ci Washington état. ñoo fa réer. suma mbootaay bi taxawu ci ñu bari ci ñooñu seen body yi maanaam néew yi dañ leen delloo ci waat fii bi may ñëw Sénégal fii ah, wala Afrique New York laa nekk ñu woo ma ne dafa am benn jigéen ñi Sierra Leone kuñ fekk mu ngi dee ci chambre bi dañ ne dans dix jours su fekkee ne suluñ ko dañuy lakk niwam bi sama mbootaay bi liggéey ak ñooñu liggéey ak état Sierra ak ñeneen pour jéem a seet ne kii suturaal nañ ko ci ni mu waree te yàlla def na sax muy jullit ñu suturaal ko foofu njabootam seen loxo jotul seen i gannaaw munuñ koy jàppale pour delloo body bi ñun dañuy taxaw ci loolu liggéey ak famille bi kenn ñaanut yàlla sa nit dee kenn ñaanut yàlla xam loo war a def su sa nit dee yàlla def na nag ñun am nañ expérience boobu so nit dee ne dañ ko war a yóbbu ci am cemetery bi wala si death house bi gars yi ñëw ñu liggéey ak ñoom am nañ numéro cemetery boobu noonu yëpp pour wax ak ñoom pour seet naka la def pour yóbbu leen foofu noonu pour ñu dem foofu noonu ñu jàppale leen ñu ñu denti fan niw bi su dee ñaari fan ñetti fan la avant ñu koy suul kayit yi ñu war a régler yëpp ñun xam nañ fan lañ war a jaar su dee foofu lañ koy suul xam nañ lan lañ war daal su dee dañ ko war a delloo si Afrique fii important ci loolu mooy ñun dinañ tete famille bi wax ak ñoom liggéey ak ñoom wan leen yoon yi ñu war a jaar yëpp dañ suturaal seen nit su fekkee ne amuñ am nañ moyen pour def ko ñun dañ leen di gaar rek gaayet leen wan leen yoon su fekkee ne ñoom amuñ moyen ñun ñu taxaw si seet naka la ñuy def ba meeg ne suturaal nañ ko wala delloo nañ body bi loolu cas yu bari la yoo xam ne ñu ngi koy lijjanti foofu. à part yéen est-ce que am na ñu nga xam ne dañuy taxaw africain yi nekk foofu ndax maanaam taxaw fi taxaw africain yi foofu noonu. matale na ndax bëri na ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàppale foofu noonu. ci gàttal daanaka réew réewi Afrique yi nekk foofu bu si nekk si li ma jot a xam. Mhm. am nañ seen association bopp. Mhm. mais te ñu ngi taraay di def seen kéemtalaay kàttan mhm. mais États-Unis ak extérieur métti na métti boo xam ne. am ku nekk yaa ngi daaw di am ñii benn liggéey la ñuy def ñii ñaari liggéey boole kook problème yi njaboot gee kii ndax mun nañuy def loolu man sama bureau 100 pour cent pour cent lii la ñuy liggéey maa ngi am huit employés ñoo xam ne ñi kévadien lañ naka euh, ivoirien lañ gambien euh, ghanéen ak nigérien ñoo xam ne ñoo nekk di liggéey foofu noonu di jàppale askan bi suba be ngoon suñ ibbee ba suñ wàcc sam lundi ba dimanche ñu ngee dox ci dimbale nit ñi am mais am na yeneen mbootaay yoo xam ne ñu ngi foofu noonu mais à des very strong is the passion there ñu ngi try seen kéemtalaay kàttan mais comme man ni ma la wax rek ne la suma story boppa moom inspiré pour ma def lii ibbi naa bureau bi cinq ans yoo xam ne fayekuwuma cinq yoo xam ne fayeeku ma te ñu ngi si ans ñaari at rek laa commencé di fayeeku foofu noonu so loolu sacrifice bu mag la ñor la nga gëm ko dugg génn lijjanti rek mooy tax pour nga mun a am réussir pour def loolu mais ci gàttal daal ndimbal mu ngi fa te kenn nag mun ta def yëpp te ñun nit suñu association bi am nañ ay challenges yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel mais ñun ci lii lañ jublu suba ba ngoon suba ngoon guddee bëccëg bureau bi ci loolu lay dox jërëjëf Pa Ousmane Senego mu ngi bi ñu la un dernier mot à la diaspora yi nga xamante ni ñoo nekk foofu noonu ban message nga leen di lancer. Euh, xanaa di digal rek pour ñu oytu mais balaa may lancer loolu rek instant yi damaa nekk Afrique fii euh, di def tournée. CEDEAO maa ngi jógee Kévad euh, ci dimanche bi laa ñëw Sénégal fii après maa ngi dem Gambie su ma fa jógee continuer dem euh, euh, Nigéria ak yeneen dëkk yi yi ma wax ni problème yi nga ma laaj ni ñu koy jànkuwanteel moo tax ñu ñëw pour jànku jàkkaarloog gouvernement dëkk yi nii muy dëkki CEDEAO yi nga xam ne seen citoyen yi nekk États-Unis ñoom la ñuy jàppale pour wax leen jafe-jafe yooyu ñun taxawaay biñ ciy taxaw taxaw bi nga xam ne ñu ngi taxaw ak seet naka la ñuy a liggéeyee ñoom ñoom gouvernement yooyu dëkk yi may dem yëpp maa ngi am réunion ak ministre bu amee wàllum culture ndax ñu ngi dox ci culture ñu ngi am euh, réunion ak ministre bu amee wàllu social ak ñi nga xam ne ñoo amee wàllum extérieur ndax ñetti ministères yi ñoo ñoom la li ñuy liggéey concerné am année bi ñu ngi def euh, festival par exemple boo xam ne am Sounds of Africa festival la tudd ñu bugg a génne kii di Baaba Maal pour yóbbu ko foofu jege Sénégal fii loolu bokk na ci li ma indi fii ministère yi ma wax ni ak président de la république ak euh, yeneen mbootaay yoo xam ne ñu ngi dox fii also di defee médiato te moom moo ñu indi Sénégal fii soo kontaan naa ci li africains yi nekk extérieur moom li may lancé rek mooy nañ bàyyi suñ xel de bañ di jalgati luwaay yi xam ne Afrique ak foofu du benn fii mun nga fiy jalgati loi suñ la téyee benn fan ñaar sax nga am loo dugalante bañ bàyyi la soo gréesee ñu bàyyi la wala suñ la bàyyee tamit sax nga dem delluwaat sa soxla kenn du la wax dara fee nag day dem sa record te daf fay nekk forever sa soxla yàqu te dañ ñëw foofu pour liggéey dañ ñëw foofu pour suturaal am luñ suturaale suñ njaboot ak suñuy para ak suñ famille kon nañ topp dëkk bi ku si am problème nag am lu la jaaxal rek mun nañuy contacter ci Washington West African Center www dot wawaak dot org wala si 253 235 2132 suñ ñu contacter rek dinañ seet naka la ñuy dimbalanteeg ñoom jërë ngeen jëf. jërëjëf Pape Ousmane.